jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi de kàddu yi nga xam ni kon Doudou dundooy daal dina ko yëkkati ginnaaw mu jàpp ni kon mënula sax nag ñàkk reetaan lu nu mel ginnaaw notification bi nga xam ni jot nañ ko ñu ni kon dogal bi moom préfet bi daal dina koy joxe waaye wax na kon jëm rek ci li nga xam ni moom mooy avocat ak juge bi di si Faye di wax ni kon moom waru woon def lu nu mel ginnaaw kon jàpp bi nga xam ni jàpp nañ ko Ousmane Sonko ndax nag par contumace lañ ko jàppee te mbir moomee kon dañuy rek sukkandiku ci bile dossier laata nag ñu koy génnee ci liste électorale yi te nag bu fekkee waxtaan wi rek dëgg la kon état mili moo am obligation mu daal di rek indi beneen procès bu yees si mbiru nag affaire euh, kile di Adji Sarr ak Ousmane Sonko ndax mu ni histoire boobee kay moom kaala boo xam ni kenn euh, du ko fàtte waaye itam jeexagul ba léegi.